waaw la le donkin de l'arène la la donkin des promoteurs sax laay wax parce que yàlla dogal na moo tëgg sa komba ginnaaw bu ma la nuyu ziar la mais balaa may dem tam dama lay jaale père Balla Gaye Ndour ndax ku ne xam ne ne mag la woon si réew mi macha allah kilifa def loo am solo si làmb formé ay mbër yéen ñi ñëpp defe naa ne ci keppaaram ngeen jaar la koy jaale lak encore une ci père Balla Gaye Ndour moom. ñu ngi la koy delloo jaal di ko ñaa di ko jaal axlu làmb di ko jaal famille am njabootam di ko jaal Youssou ak suñu yaay yi nekk ci kër ga. ko jaale képp koo xamante ne tey dëkk nga biir géejawaay di ko jaale Balla Gaye di ko jaare Père Ali di ko jaale waa équipe Balla Gaye bi yëpp waaw. Euh, Pape Bouba Diop tamit ñu jaalaat ko waa Sénégal jaalaat la ko kooku tamit génn àddina am loo ciy wax parce que sportif la woon de haut niveau sagal Sénégal ci coupe du monde. non man bégal na ma bégal na Sénégal tamit xaw ma kan waaye mondial 2002 boobu noonu man de du ma ko mës a fàtte. lu ah, parce que euh, bégal na ma benn péere bégal boo xamante ne contre France mhm. du ma ko fàtte waaw ah. yow jamono jooju ci loo nekkoon euh, jamono googu noonu maa ngi jàng maa ngi kii tout maa ngi entraîné maa ngi entraîné ci ikir yi ba fi ñu ikiri waaw ah. boobu mais ba mu bëree ko 2005 euh, laa génn nag nga bëri waaw laa génn kon moom da daan dem di entraîné nii rek dañ doon dem nekk foofu di contact bëri mbapat. jour yi kan moo ci nekkoon sa jour 2002 boobu. Euh, man man Fadiga moo nekkoon sama jour. Khalilou Fadiga. waaw ah, parce que dafa ndróog dafa ndróog euh, sama benn rakku yaay. Ah, jibi loolu taxoon nga waaw lu ma tax ma bëggoon ko. en plus de euh, mooy borom gaucher or bi. gaucher magique. waaw ah, gaucher magique bi. waaw. xamoon nga club bi mu doon football jamono yooyu non xaw ma woon que heure bi mu doon football ko bëggoon rek li mu doon li mu doon li mu yoroon titre li mu doon football Sénégal waaw di waaw gauche bi waaw mën a football Fadiga loolu mu nekkoon ci moom da doon laxas lu set wicc mais tamit bon yàlla dem na dem na ba génn fa ñun xam nga nit ak mbokkam waaw nit mbokkam ah. di bëggee képp koo xam ne yaa ngi équipe nationale ah Sadio mu ngi fa Papis Demba Cissé sama tooma. Ban Bandinko Papis Demba Cissé. la sama waay la sama xarit la waaw Sadio Mané tamit sama xarit sama nit la waaw équipe nationale ñi fa nekk ñëpp maa ngi bëggee ñëpp waaw ñoom ñëpp samay soppe lañu. ma ciy profité sama benn waaye tamit bu fa ne sama rak maa ngi koy bëggee mais Fadiga jamono boobu Auxerre la doon football ah Giroud moo nekkoon entraîneur am voilà noonu la demee ah. non topp nga ko nag yow. non man man lag. <laughs> <laughs> non topp ko ko. xam nga damay ni muy suivre lamb laay suivre football. Euh, loolu am na solo jaale nga Pape Bouba jaare Père Balla Gaye Ndour mais am na koo xam ne tamit balaa may dugg yow ci waxtaan dinaa parce que géejawaay la dëkk sagal na Sénégal muy kenn ndooy danañ doomu géejawaay la. fan yi dafa wéradi ba tëdd lu xaw a yàgg ba ñu doon wax état bi sax nañ ko jàppale ñun waxoon nañ sax defe naa su ma jumul état ne nañ génne na 10 millions joxe ko mu dëkk Géejawaay kenn ah. dooy di athlète sénégalais nekkoon génération ñoom Ami Mbacke Thiam ak yooyu yaakaar naa ne. waaw xam nga tey ah euh, li war gouvernement bi ah moom mooy tey koo xam dafa téye dafa téye euh, drapeau Sénégal yóbbu ko fu ne tey bu demee ba am lu ko dal yaa ngi dégg loxoom jotul ginnaawam maanaam na ko na ko na ko na ko na ko gouvernement bi gëstuwaat yaa ngi di jàppale ko ñu yóbbu ko dem faj du leen wàññi dara yàlla rek moom moon di fay di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati fa mu tëdd mu jóg ba nekkaat ci activité am waaw parce que tamit lu mu bon bon bon bon am na lu mu indi am na lu mu indi Sénégal am na lu mu rapporter Sénégal tamit kon donc ñu koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yëkkati ci barke Seydina moom. xam ko moom géej waaye la dëkk dégg naa. non damay dégg turam rek mais mosuma gisante ak moom waaw damay dégg turam rek. est-ce que pare nga yow par rapport ak sa ay xameek sa ay am di jàmm dem soutenir ko en tant que doomu géej doomu géej mais en tant que boo xam ne dafa ci réew mi. waaw loolu la ñaan yàlla loolu la ñaan yàlla nit bu nekkee ci ay jafe-jafe. yaa ngi dégg bu sa boo amee ñoo xamante ne wóor na ñii boo la ko waxee dinañ ñëw joxe seen participation loolu daf ciy baax. man na bëgg naa nga jéem koo gëstu ji parce que géejewaay la dëkk. fan ci géejewaay la dëkkee moom. ah loolu nag moom xaw ma exactement. waaw ci gëstu. kenn doy moom boo duggee géejewaay laajte ko dina. Montpied la route Alioune Seye war na mën a xam fa la dëkk fa fa la dëkkee waaw. te incha allah bu neexee yàlla dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax. waaw pour soutenir waaw. Ah, am na solo incha léegi nag lu dafa waxul la olof wax lu aay di njàmbat mooy sa diggante ak Eumeu bëre ngeen bëreeti loolu ñëpp xam nañ ko mu daan la ngeen mat sinil combat yu metti ngeen bëri surtout bu njëkk ba keroog da ngeen a bëri ba Tapha Guèye naan lii mooy komba ngeen xeexoon xeex bu tar deuxième combat bay ñëw mu mel ni loola balaa mu cay am Eumeu def na la lam la bëgg a def ngeen war a waat waaw deuxième combat ba moom balaa ngeen di xeex sa def na la lim la bëggoon def. <laughs> yaa ko résumé nii ba toog. ah waaw parce que damaa gis ngeen ngeen ngeen ngeen ne tàj corosé yi jóg. ah lépp daw corosé yi ah, xanaa ki bëgg est-ce que du daa bëgg na daan moo tax mu wàcc cib tànk. damay laajte ku daw mi yaay wax ki daw man kay yow ma ko daw. ah man dama ñëw pour jixaay ak jour boobu noonu. yaay xam man jëloon naa pour stade bi riir. waa mais bëri dóor lañu. waaw yaa ngi dégg ñu am lu ñu waxante ca contrat ba mu jaay ma xelu mag yaa def ma lu may def man nangu accepté ko parce que moom ma jiitu ci làmb mais dañ ne xale boo koy teetee daan ko ca njël ba balaa muy màgg. da ngaa ak doole sax. màgg jëm ci kaw jëm ci kaw Eumeu Sène. ci kàttanu yàlla. Eumeu Sène bu miin géejawaay lool. waaw baax na miin na ko moom. miin na géejawaay de. waaw bëri na bëri na Balla Gaye ñaari yoon bëri man ñaari yoon. Ah, muy yaa ngi dégg muy quatre. baar bi ne firi. cinquième bi. ci kàttanu yàlla yàlla ñuy may lu ñu bëgg. te su ma jumul yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana ma fal sëy bëri nag ëma seen doomu ndemti yàlla alin sëy dafa ma fal sëy numéro 2 su ma jumul defe naa du ëma waaw defe naa ma faala ko daanoon xaw moo daanoon na di maa ngi fàttaliku bëri de mais ne nii su dégg ban métier nga doon man froid laa doon jàng froid. frigoriste laa woon. parce que su ma la déggee say point wax ak yow sa engagement ba ci signature ba kera yow dafa mel ni Eumeu seen daal fi mu ne nii da maanaam koo téele ci loo koo xam da nga war a poñe rek ñëw daan ko est que loolu noonu du excès de confiance. de confiance. mais nit booy génn sa kër confiance. yow ba ngay génn sa ñëw da nga am confiance da ngay toog ak Lac de Guiers. man dafa ne dama damay gëm damay jàpp daan ki ngay bëgg jàpp daan est-ce que yomb naa jàpp daan. loolu la ñuy ñaan yàlla jàpp daan ko te day am incha allah. dégg naa fi sa benn problème màcce mu ne bëre bi yaay bëre bi yoon yaay xeex da ngeen maanaam da ngeen di da ngay xeex ak moom bëreeg moom. ci kàttanu yàlla. est-ce que loolu wóor na. ndax am wóor na lu ci wóor di. ah damaa xam ne mbër moo xam ne da. dama mënul bëre. non déet waxuma ba tey waxuma. mënul xeex ba tey waxuma lool. wala dama ñàkk kàttan. ba tey waxuma lool. kon da nga bës xam nga maa ngi lay wax sànq dégluwum nee naa la xale màgg na. ci loo màgg. ci lépp ci mental ci kattan ci mën bëre. ci kattan ci ci ci xel ci ci mën bëre mais est-ce que koo xam ne dafa bëre ñàkk combat xam nga Eumeu Sène daa ñàkk war a ñëwaat. nga yaakaar ne kooku itam bi yoon moom itam li na ci yow est-ce que lu ëpp du ne ci moom buy ñëw. man mi ma daan nag. su may ñëwaat nu ma war a def. waaw yow laa daan. waaw man nan laa war a ñëwaatee ak waaw nan nan laa war a mën a ñëwaatee man su may ñëw da nga yaakaar duñ xaar nga baissé su may ñëwaat nan laa war a mën a ñëwaatee man ñaanatuma yàlla ma man ndam sama kaw de. Hmm. mais comme tey li Sénégalais yi wax sa coach su juñu na ko léegi ñu bëri dañ nan lag euh, maanaam du bu ñëwee ci géew bi du bëre maanaam moom. daal affaire ba da koy xaw a kii daal da koy mel ni lu ko seddal. da mel lu koy seddal mais su ma ko seddalee mbër moom loolu ko seddalee lu tax tàngalu ko mu xool nga xam dina tàngam du tàng mais ñoom dañuy sóor ne buñ ko tàngalee Lac de Guiers da leen di gën a tàng moo tax bu ñuy ñëwee ñoom dañ koy seral léegi bëgg a jël toor yëpp teg ko ci kaw Lac de Guiers loolu loolu xanaa du bëri ñaar a koy def waaw bu ma ko seeralee nañ ko tàngal. kon da ngaa bëgg moom ñu ñu ñu safal ko ba mu saf. ñoom moom ci boppam moom mbër mi ci boppam moom ma seen ci boppam bu bëggee affaire bi tàng day tàng par force parce que bu ñu jël affaire bi rek teg ko ci kaw la dégg na la dégg yar moom day ñëw wax wax ba affaire bi tàng pare bu ñëwee mun ti tekk na xanaa la dégg yar kese moom mooy léewto kan ma fa taxawaat. yéen ñaar ne ci géew bi. su ba seeralee mu tàngal mu xool ndax dina tàngam déet. wala dañuy ragal a tàngal parce que xam nañ bu ñu tàngalee sama yaram bu tàngi du baax ci ñoom. ah seen combat bu njëkk nag tàngaloon na ko de. waaw ah. tàngoon na jër moom. ci ñaar côté yëpp ci côté yëpp la tàng de. Ah, waaw waaw day ñaar ñëpp ku ne moom. Euh, waaw kere. waaw ah, waaw mu ngi parce que xam nañ ne xew xam na ñu bu tàngee musiba la ci ñoom moo tax bu ñu ñëwee dañ may jéem a dugal ci fan lañ may dugalee ci am matière de communication foofu lañ may dugalee léegi bu ñu jëlee nag jël torop te ko sama kaw parce que dañu la dëggee ne na lii ak lii ak lii ak lii ak lii léegi moom bésu làmb ji mu toog seral léegi ñoom bu bu ma taxawee di xaar ñoom pourquoi pas ñoom ñëw ñu dal sama kaw jëlee ma fi la mooy seen problème ñoom. am na seen yéen ñaar ku dàq bëri. ku dàq bëri maa ngi moom man de xam naa ne dàquma bëri man. ku dàq bëri laa wax man nekkuma sama bëri man. man dama ne ku dàq bëri. ku dàq bëri man dàquma bëri. kon yaa ko dàq bëri. ah man ci li ma gëm-gëm man maa dàq bëri man ci làmb wàllum doole actuellement yéen ñaar ku ku ku ci ëpp. yàlla rek moo xam ko am doole. doole entraînement laa ma maa ngi entraîné maa ngi entraîné yàlla xam ndax am naa doole ma doole. yow mii xam nga ne. Ah, man entraînement tax may wax. non su ma la waxee am naa doole. doole yi bëri ma wax la su ma la am naa doole te aw ma doole waxuma lu am yaa ngi dégg mais dama la ne yàlla moom xam na ndax am naa doole wala aw ma doole su ma may doole moom xam na su ma amul doole moom xam na. combat mu mel ni balaa mu doon taxaw. bëri woon na coow nit ñi sax demoon nañ beneen lag du bëri ren parce que adversaire yi Gris Bordeaux Balla Gaye taxaw na Bombardier Eumeu Sène jàppal bàyyil boobu ñemee ne dañ la sàppe ba ñu doon wax loolu mu mel nekki boobu amoon nga yàq ne am combat de ak maa gëmoon hmm. dina am combat foo ko tegoon fu ma ko tegoon parce que xam naa ne yàlla du ma seetaan mbirum suñu borom dafa yéeme ak xamoon ne du ma seetaan te xamoon naa ne gars yi la wax loolu du am man damay bëri bu neexee yàlla. damay combat bi ñëw taxaw sa digganteeg balaa muy taxaw sa gas coow am na sa digganteeg père Gaston par la suite ngeen déggoo. dégg nga ñu koy nuyu di ko. waaw père maa ngi lay ziar sama xaritu xol. waaw moom sincèrement parler. père Gas borom xol bu naaj. sama sama combat yëpp moo ko tëgg ah. moo ko ah, tëgg waaw ah, lu bari sax. lu bari moom moo ko tëgg. kooku père suñu père moom kooku dañ koy ñaanal yàlla rek. Mhm. yàlla yàlla guddal fanam. Mhm. Euh, yàlla fay ko xolam ah. ndax defe naa àdduna bi fii ku ñu wax yàlla la yàlla fay sa xol euh, da nga cee war a kontaan ci booy def lu baax ah voilà surtout booy def lu baax waaw yàlla na ko yàlla fay xolam yaa ngi dégg yàlla guddal fanam ci barke Seydina Mohamed ah, mu nekk fi ñu papa ju baax man de xawma kan man la dégg sama xarit la. am na solo waaw mu mel ni keroog bi ngeen defee signature ba pare am na xam ne dañ ne lak mbir mi dafa mel ci mbiru mystique la ko bëgg a teg parce que gis nañ ko ngay wax sa ta li sa tànk si suuf beeg di tudd ay yaan baas ak kan mooy yaan baas foofu mu dëkk ci réew mi lu ma ko laaj Eumeu Sène ba tudd ko waaw ah, le coup est déjà parti lu ma wax fee du ma ko waxaat fii dañu waxaat ci leneen moom xam na xam na xanaa yaan baas dala fu mu dëkk ci réew mi ab sénégalais wala ab guinéen wala ab malien wala ab laaj ko monsieur xam na koy yaan lu la dénk yow. ah yaan lu ngeen waxante. yaan waaw. Ah. yaan li ñuy waxante bari na de. ci combat bi. est xam nga ne yaan sama xarit la balaa muy xam am ma seen sax yaan sama xarit la woon. Hmm. wallaahi seen xaritoo fu mu jógee ak lu ko andi. yaan loolu du ci commentaire yaan sama xarit la sama xarit la yaan xam na bu seetaanee émission bi moom xam na ne sama xarit la. waaw ngay bëreeg moom ba pare ngay bëreeg Eumeu Sène te man bu ma fàttalikoo su ma jumul yaan bi bëri Eumeu Sène di bëri ak Bombardier defe naa gisoon naa ko fa ngay nga war a bëreeg Eumeu Sène tey est-ce que loolu wóor na. lu ci wóor moom laa lay laaj. lan moo ci wóor di yaan sama xarit la te su ma la waxee yaan sama xarit la yaan sama xarit la wallahi yaan sama xarit la. xanaa ngemb ngeen di xëccoo foofu. ban ngemb la ñuy xëccoo foofu. ci yaan yaan xëccoo ñu dara ci moom yaan dafa nekk nit ku baax nit ku gore nag képp ku ko bàyyi rek képp ku mu jotal ba bàyyi la rek am na loo xamante ne def ko ko mu metti ko trop. kon ab bàyyante daa am. ci kan. yaa nag yaan ku mu bàyyi. waaw képp ku mu bàyyi. dafa lu metti loo ko def. daa am ku mu bàyyi. Ah, xaw ma de. ah déet yow mi yaa wax ah, dama wax rek. kon ku yaan bàyyi. ah xoolal rek. yow yaan dalaa jàpp yow. yaan. su ma la su ma toogoon léegi-léegi bu ñu paree léegi ma woo yaan ma wax ak moom nga dégg yaan sama xarit la de su ma la wax yaan sama tànk yu xaw ma rëdd lan lu ne ci tànku jàmbur loolu am na ci looloo am tànku Eumeu Sène yow yow ku la wax loolu ak foo ko gisee lamb mafia la bi da nga foog mafia koy gañe lépp koy gañe en tout cas boo nekkee ak nit fonk leen jox leen cër bëgg leen boo nekkee ak nit fonk leen bëgg leen jox leen cër man du ma ñëw di taxaw di jël ay audio di ko yóbbul ay sëriñ du ma ko def. loolu mooy lan. non man xam naa li may wax moom bu seetaanee dina xam bu baax li ma koy wax. xam. moom am. dafa jël say audio wala ay audio. déet du samay audio du samay audio am sax. lu la xamal loolu yow tamit la kon. fii Sénégal la. man damaa ay maaraa yoo xamal da ngay da ngay lijjanti ma foo ne rek. déggoo ma la man damaa ay maaraa fii. amam ñoo xam dañ ma bëgg dañ may tiitaroo mais lépp dina leer nañ dawal ba ba face à face am. Hmm. dinaa ko luy tàq tudd fay. moom Eumeu Sène lu leer laa la wax. ah Eumeu làmmiñ wi damul ci poosam te te te xamante ngeen de lak ah xamante ngeen ci bëreet ci géew bi de. waaw baax na baax na xamante nañ bu baax parce que xam naa Eumeu Sène waa Pikine la de. waaw ba ci la. Pikine mel nañ géejawaay de. ma ko waxee lim lim lim def yëpp. Pikine génn ci moom. mais loo koy looy wax yow itam lu pa loolu. moom kay nañ wax ci sport bi rek nag. du ma wax mais nañ ba nañ nañ nañ daw nañ daw ba ci kanam. bés bu ma la waxee li waaye ce que menaces yi ngay def gis nga booy yi nii nii yi ah. Pikine yi bëgg ci kenn day wax lu neex rek. lu tax nga wax lii. parce que dama bëreeg booy ñaar lu bëri lu ci xew. nañ doxal. Papis nag yow mii dama yaakaar yow est que da nga bëgg a jéem a dugg Pikine di leen jéem a jaxase nii rek naan ay bëggul Eumeu Sène di magum Pikine di magi. yonenti yàlla Muhammad barki yonenti yàlla Muhammad laa wax. bu fekkee li may wax raw na wan naa ci benn baat yàlla bu ma tekki. ah waaw loolu de parce que yàlla bu ma am ndam bu boobaa ma Eumeu Sène lu ma sama combat ak Boy ci def su ma ko taxee wax ko dëkk bi nañ bàyyi mu set nañ dawal ba ci kanam. loolu man duma ci lool man fa duma ci yem man damaa bëgg a keef sax man. ñoo keefagoo sax ah, maa ngi bëgg a waaru. parce que parce que jeex na nañ bàyyi noonu mu set. mais lagit de wax dinaa ko tont la mu la ma waxal biir kees dinaa ko tontu bu ñu yàqamti contrat mu ngi dem nañ dem ba ci kanam na bàyyi muy def. Père Gassam ji nar naa métti de. parce que man it am na loo xam ne ni seetlu naa ko yow dafa mel ni des fois da ngay xaw a sax tiital sa adversaire yi ci communication sa sa combat mu lu yu mel ni xawoon na ci am de xawoon nga ko ci nax nan ko bu la supporter yi xamoon nag yooyu. man lépp lu est yooyu ngay da ngay defaat da ngay defaat loolu rek pour jéem a manipuler. may wax ah ko teg fi bit bu leer nañ man du ma waxantu man lépp lu may wax dama koy teg ci bit bu leer nañ te yàlla rek moom mu tiim man du ma sosal doomu aadama wallahi azim du ma sosal doomu adama li am rek laa lay wax. li waaw. moom booyee ko bëgg mais buggu ci kenn centimètre moom xam na li ma koy wax te du nangoo teg loxo mukk ci kaamil waat ko. mais mais man mais man euh, ba tey damay ñëw mën naa mën naa des ci seen combat sax parce que xam naa ne li tax ma ciy des mooy ah Pikine la way la loolu nag xëy na yow yaa ko xam parce que ñun xamuñu yooyu waaye li am solo daal mooy moom ñun ñaar am ngeen combat dafa mel ni keral lam la wax itam ne na la bàyyi sa xel mi ngay fooye waaw moom daa jàpp na da ngay foyee mi ci combat bii. waaw damay sama xel bi ci combat bi amul benn problème damay jàppal damay foyee sama xel bi dégg nga dama koy foyee baax a baax a baax Babacar combat bi daf ma ñor de wallahi daf maa ñor daf ma ñor dëgg billahi daf maa ñor da ngeen rek. xanaa kon balaa ñuy. pour man bii mooy sama premier combat. ma def ma def ma ñor trop wallahi daf maa ñor daf ma daf ma ma ñor trop trop nag. trop la combat wallahi daf maa ñor trop te daf ma jaral nag lu mu laaj dinaa ko ci def. lu ay jamono daan mu woon mbër. mais léegi mbër dëgg la mbër dëgg nga te daf ma jaral na combat bi daa mel ni kon daa mel ni affaire yi eh, mystiquement da nga taxaw de déggoo ma daf ma ñor dëgg combat ko lal ci biir moo bari dama lay wax nag nga yaakaar dama koy wax pour euh, maanaam pour pour pour pour jaxase xel nit ki ma duma genre boobu noonu su ma waxee ne combat bi daf ma ñor dëgg moom war na xam ne bu tëddee war na xam ne combat bi ñor na ma dëgg te sur les plans nag la ma jaral sur tous les plans la ma jaral